seydina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallim mbokk yi jullit yi mbokki taalibe yi ak fu ñu mën a nekk ñi ngi fii ci Tuubaa tey ci wetu cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifa al aam li tariqa al muridiya xafizahu llahu wa raahu wa ayyadahu wa nasara di leen nuyu nuyoob lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullah ni ngeen ko xamee rek baaxoo ko mooy buñ egsee ci weer wii di weeru Cheikhul Xadim muy safar xel yëpp dem ci benn bis xel yëpp dem ci fukki fan ak juróom-ñett yi nga xam ne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 wa ila jamii al muslimina amatan eh, muy kàddu yoo xam ne rek kàddu yi soññee kàddu yi cant kàddu yi fàttali loolu mooy kàddu yi ñu ñaanal ko mu fekke ko ay déwéni déwéni déwéni déwén nu di ko fekk ay déwéni déwén ànd ak moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu alhamdulilahi rabbil alamin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 waaye ndaw yi. waaye nag rawatina ndaw ñi. jiitu ci jiitu ci. mooy nu gën a góor góorgóorlu rek. mooy nu gën a góorgóorlu rek. ci njub ci yàlla njubug yàlla. sunu borom di santaane. borom di santaane. nu di ci góorgóorlu sunu kem kattan. li mu tere. gën koo daw sunu nu du gën koo daw sunu xelu bakkan sunu kem kattan. fas yéene di taalibe nag fas yéene nag di taalibe nag rek. ci suñ lépp ci suñ lépp. di yéeneenti lu baax. di yéeneenti lu baax. ndax yéene yéene moo jiitu. ndax yéene moo jiitu. nu yéene lu baax. nu yéene lu baax. rawatina ko yéeneente. rawatina nag ñu di ko yéeneente ci sunu diggante. di bëgg lu baax. di bëgg lu baax. yàlla rek tax te yàlla rek tax.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 ladaa daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa qilaam kon loolu wane woon na ne fii la koy defee nawaytu shukruka fii zal yawmi yaa samadi yaa samadi yàllaahu sa sal ayni qabla rai wa chiini am na fu mu wax ne alayya shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daaratin minan yooyu yëpp day firndeel rek ne sëriñ bi fii la ko yéene woon a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 te doxee ko noonee mu ko bëgg woon wa ma zalika ala allahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yasmini llahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu bi yaa wali